mbokki internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen euh, ziar di leen euh, jaajëfal leen wax ni rek dal leen ak jàmm fii seen chaîne youtube SENactu TV tey nag dañuy daal di ñëw ak yéen ci di a fës ci xibaar yi xibaar yi ndiki tey dinañ ko door foofee ca Qatar ndax ku dégg Qatar rek xel dina dem ci coupe du monde coupe du monde nag ay équipe yoo xamante ni rek dañuy yëngoo ci wàllu football nga xam ne fépp ci àddina bi yenn ci ay dëkk dañ koy daal di def ba tax na dañuy organiser ay at li nga xam ne moo di coupe du monde ginnaaw nag ba ñu jotee tànnee équipe yi nga xam ne ñoo war a bokk ci bi lépp euh, jongante ba sax nag réew Sénégal suñu sélection équipe nationale bi di les lions du Sénégal nar a dem bokk ci bi lépp jongante Sénégal amati na ndam ndam li nag ndam lu rëy la ndax ki nga xam ne moo di Boubacar Diallo ñu gën koo xam ci DJ Boubs nekk fii nii nag ab animateur waaye tamit nekk na fii ki nga xam ne moo di ab présentateur émission moom mais ba tey di Boubacar Diallo nekk na ki nga xam ne moo di directeur général Fall production et de marketing bu li nga xam ni moo di entreprise bi di wuyoo si turu E-Media Invest E-Media Invest nag mu ngi ko créé woon mu ngi ko dooroon ndiki 2018 moom mais nag di bi lépp njiit dañ koo tànn foofee ca Doha di capitale bu Qatar bi nga xam ne jongante bi fa la war a am rek ngir rek mu dem fa représenté fa li nga xam ne moo di qualité speaker foofee ca euh, Doha ci bi lép compétition bu coupe du monde rek buñ fa war a am buñ fa war a fierté doon na mbégte doon na contentement fii ci réewub Sénégal ndax fépp rek fu internet nekk ak fu nit nekk rek mi ngi réagir rek di kontaan ci bi lépp tànn bu ñu tànn ki nga xam ni moo di Boubacar Diallo Boubacar Diallo nag ku ko xam dina ko xam ci liggéey dina ko xam ci dal dina ko xam si tey waaye dina ko xam nag ci am fulla ak bëgg lu liggéey ba tax na nag jël nañ ko foofee ca Qatar ngir rek mu représenté fi li nga xam ne moo di Sénégal nekk fa li nga xam ne moo di qualité speaker mbokki internet yi bu ñu jógee foofu dañuy daal di dem ci milieu showbiz showbiz nag soo leen ngeen ko déggee seen xel na dem ci artistes yi waaye tamit dina dem ci ñi nga xam ne ñoo di jet setteurs yi dina dem tax ci comédiens yi mais dina jot képp koo xamante rek siiw nga ba tax na nag ndiki dimanche bu ñu génn ki nga xam ne moo di Dieyla Dieyla nag ab xale la waaye nag ab waykat la moom mooy nag di laa fu mu njëkkee génn nekkul feneen fu dul seen Petit Gallé ginnaaw nag seen Petit Gallé ab compétition la boo xamante ni day jël ay xale di fa dajale ngir rek ñuy amal ay way waaye nag ba néewaloon doole ba tax na nag moom mee di Dieyla nekk natif de Guédiawaye ba mu fa jugee rek dafa daal di ber yoonam daal di jël yoonu boppam ginnaaw noonu nag nekk na artiste yu gën a nekk xale fii ci Sénégal waaye nekk na artiste bu ñu gën ndaw fii ci Sénégal bokk na ci artiste yoo xamante ne jox nañ ko cër ngir rek dalam teeyam waaye nag ngir rek classe bi mu àndal xale bi nga xam ne du sol lu vulgaire moom moomee nag di laa nag temps yee passé jotoon nañ koo dégg ci ay rumeur rek newoon day génn ak ab artiste bii di dann waaye nag bi lépp information information bañ ko toppee ba ci biir moom moomee di Dieyla jotul euh, nekk ki nga xam ne moo di daan ndax euh, ndiki dimanche bi ñu génn ki nga xam ne moo di manager am di yas daal na ko jël soxna mu nekk nag aawa yaay ba tax na nag li ni mel nag soke woon euh, ñenn ci internet yi ndax yëguñu woon bi lépp relation ak coow bu fi génn waaye nag yas nag di manageru Dieyla ànd ak moom fu ne jàppale ko fu ne booster carrière am ba mu toll fii jël na ko soxna ndiki dimanche xam ni ñoo di xaadir yi ginnaaw nag ba nga xamee ni ñoom rek seen xalif général dëddu woon bu yàggul dara euh, ndiki aljuma yem ak fukki fan nag benn ci weer euh, bi ñu ne ñoom ñee di xaadir yi nag jot nañoo tekk ki nga xam ni mooy seen i njiit ñu koy woowee xalif général di xaadir di woyoo si sit site El Hadj Serif Aydara moom nag moo nekk ki nga xam ni fi mu tollu tembe mooy xalif de général euh, xaadir foofee nag ci Nimzaat dañuy jóge foofu daal dugg ci politique ndax nag foofee ca Bali njiitu réewub Sénégal jot na fa dem def fa ab taxawaay foofee nag ca Bali li fa xew mooy sommet des g li nga xam ne nag moo di dix-septième session euh, ñu tuddee ko se relever ensemble se relever plus fort euh, bi lépp session nag di dix-septième session bi li ni mel nag la ñu koy wuyoo njiitu réewub Sénégal nag nekk nag Macky euh, jot na dem teewee bi lépp session di am foofee ca Bali nekk ca Indonésie Indonésie moom nag di njiitu réewub Sénégal xamal na rek da mu bëgg mooy li nga xam ne moo di Afrique bokk rek ñi nga xam ne ñoom ñoo jël décision yi nga mag yi nga xam ne mooy am ci àdduna li ni mel nag yitteel na ko jot nañu sax gis ay image yu mu jot a taxawal ki nga xam ne moo di njiitu réewub France di wuyoo si turu Macron di xam ne mooy di Union africaine moo tax nag moom foofee ca baale rek muy xamal ne que jot na li nga xam ne moo di Union euh, africaine bokk rek ci nga xam ne moo di sommet G20 yi bokk rek ci ñi nga xam ne nag bépp décision bi xew ci àdduna bi moom mee di waa UA dinañ mën a bokk rek ci li nga xam ne moo di euh, membre des grands de décision fii ci li nga xam ne moo di ci àdduna wërngal këpp waaye nag bu leen rek fàttali nga xam ne ki di Pape Alé Niang moo ngi ci kaso bi moom nag caabi féete na ko ginnaaw ki ay semaine gannaaw nag ba mu fësalee rek lenn li nga xam ne rek ñoom ñi nekk ci nguur gi dañoo jàpp ne rek moom mee di Pape Alé Niang waru ko woon génne waru ko woon fësal te nag waru ko woon sax wax ba tax na nag kii nekkoon fi ab artiste ñu wuyu si def na ab sortie di xamal ni rek que li ñu def Pape Alé Niang du lenn lu néewul ko doole te nag li ni mel nag teguñu ko fenn ndax jàppale ko ci li nga xam ne moo di liggéeyam du dëgg du yoon ba tax na moom mee di Massane taxaw na temb rek firndeel ni rek moom pare na pour lépp pare na rek pour xeexle ki nga xam ne moo di Pape Alé Niang ngir rek mu génn ci li mu nekk bu ñu fa jugee dañuy dem dañuy daal dem amoo foofee ca Louga ginnaaw nag ak ministre boo xamante ni tab tabbuñu ko benn yoon bokkul ci gin bokkul ci benn parti rek moom moo ñëw rek tuddee boppam ab ministre foofee ca Louga ba tax na nag li nga xam ne moo di caabi mujj na koo féete ginnaaw ndax rek moom mee di Moustapha mujjee nañ koo jàpp rek ba daal di ko tëj foofee ca kaso bu Louga moom nag dina nañ amal procès mu niki rek semaine bu ñu dëgmbal waaye nag lu ci mënti am ak xibaar bu ci njëkk rot rek dina ne ko taataanal fii nga xam ne moo di seen chaîne YouTube SENactu TV mbokki internet yi nag xibaar yi dañ ko daal di ndar keppe foofee ca Mbàkke ndax nag ab baykat rek moo daal di jàpp loxo ab jàmbur daal ci def naxa du noonu rek ba daal di damm bi lépp loxo li mel nag Mbàkke la xewee mbokki internet SENactu TV tey nag li leen di indiloon ci li gën a fas ci xibaar yi dig daje ëllëg waaye laata loolu wooye di leen di abonné te bu leen fàtte di appuyé wu ci cloche de notification pour di mën a am suñu ay vidéo à la prochaine ci yeneen rubrique la prochaine tamit yeneen information office seen chaîne YouTube SENactu TV la chaîne au cœur de l'information